damay wax ni bulëg mor see na ko gërëme coy duñ ci dara ñii ŋànk liggéey bi ñoo coobarewu ci lii yaatu ba yegg ci fii ñoo ko joxoñ kii di kilifa gi àddu ca ci yéeneem yàlla fekk ko ca mu bisaab bii jëm ci ndogu yi ci koor gi ci jumaay Ahmadul Xadim ji lu yàgg dëgg la waaye bàyyaay ndongo daf maa waxoon ne lu yàgg dëgg la waaye bu jëmee ci yàlla ca doon dëgg yàgg na busoo yàlla na gën a yàgg na gën a yàgg sa laaw boo sañoon fu ñu dégg koy liggéeyal Ahmadul Xadim ilhaamulatiful xabiir yegg fa yéene nga ko waxee nga ko jëfe nga ko bu ñu see fii yéen la kon liggéey bi moo taxaw nii nekk liggéey bu ngoy gépp am yéene ndax jiima fay bor te sàllaa munuñ laa fay bor bu lu jógee ci sa kàddu lu ne mbaal bu jógee ci Touba Ngoy jëm si Touba gii xel ci ka xel di njëkk dem mooy seen jëmm ji ndax wax nga ko ci ñun jëf nga ko ci ñun sa baaraam a tegu woon fa sa yéene yeggoon yàlla suñu borom fekk la caag ba tey lii lii dolle ku ci ñuy sant bu baax tey ñaan damay wax ni mat nga ko sëkk bu so te taxawaay bi yàlla na gën a yàgg waaye ñii nga fi bàyyi ñu di ay ndaw sàlla mat nañ ko sëkk ndax du jenn jamono ju ñu ñu wone wut loo tax liggéey bi gën a yaatu sag barkeel barkeelu kàddu tax lépp luñ ñu joxoñ buñ ca tàbbee len lu dul alhamdulilah rek du du ca jógi koor waaye duñ ci dara lépp yéen la mooy wax nii ba ngay wax ne boole leen ci ajjumay at mi dangaa meloon ni ku tiim lépp ñu noonu la fas nañ ko yéene incha allah loole mooy law di law di law di law ba yegg si fii tey ba koor gi tàmbalee la ñu waxandoor ne bisaa bii dey ndax nuñ ko wax jox waa Touba Ngoye bañ ko waxee tamit lañu ci yéene woon te wax ko tislaayu amul ko diim mooy sallaa buñ ñu ko joxee day du dellu gannaaw la jàlloon jàll na waaye tey jii juróom-benn fukki saaku ak juróom-benn moo yegsi seere luñ ko kenn nit ku dul amul kenn nit defu ko mboole seen ngoy gépp ko def te am ci yéene lool am ci yéene lool lool muy mag muy ndaw di góor ak jigéen ñëpp ci am yéene kon ndigal daa jiboon jëfe nañ ndigal li njëriñ la ñuy xaar te wér na ni sàllaaw nangu am na li ñu leen di ñaanloo mooy mu sax ndax ñu daje ngërëm bu sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax lépp ci turu Baye Abdou mii lañ ko xee ci turu Ngoye Diop kon sant nañ bu baax bu Bousso gërëm nañu salaamaaleykum. xam naa kàddu yi daa mënta ñàkk waaye. daanaka jurutoon mu jub ngir xam nañ ko nga weesuut sant ak ñaan ak nangu ndax liggéey bi wax dëgg yàlla ku ne xam ne lii xajul ci jumaa ji waaye seen positif ak seen manin ak seen doxin ngeen ci feeñal kon wax nga jëm ci ku mat a jëm koo xam ne boo wax jën ci woon dafa gàttan muy Cheikhul Khadim ku ne jëf ji ku ne xam ne ne jëf ji am na xabul suñu borom nangu na ko ndax ñu ko du demee nii ndax bañ ci suba ba léegi ci liggéey bi fu ngeen teg seen tànk ren bu déwénee rek teg ngeen ko ci kanam yàlla na dox ba ci kanam Cheikhul Khadim te xam ne noonu lay demee yàlla yàgg lool bu ko ne def ko ni nga ko bëggee sa njaboot def ko ni ko bëggee ba ak Seexul Xadiim xam ne loolu mooy seen yéene xam nga seen seen dund waaye seen njaboot ngeen ci sóoraale ndax doxin wi xal la waa njaboot ngeen nii mooy doxin wi ngeen di doxee ndax nii ko ne xam ne mag du doxee du mag li wax nu xam nu ko doxee bu gaynde bu ñëw mu ngoog nii ngeen di jëfe moom njaboot ngeen di wan ne nii mooy yoon wi te it noonu rek moo yoon wi nag ndax nit ki li muy def ba tëlee te ko ko def njabootam di ko def mel na ni ma ngi koy def ba tey te njabootu ko sàkku loolu rek nga koy doy waaye xaq naa bi ñu dur yaatiim xam moo ne njaboot gi dañu leen yéegal ci seen kilifa bu fekkee topp na leen ci gëm ngañ gëm Euh, noonu de ñu ngi santaale ci yéen bu baax a baax ndax ànd gi nga xam ne moom la sëñ bi ci dara te lépp suñu njariña lépp suñu njariña damay wax ne fi ngeen féete mooy buy fii ku leen ana ko fi féete yëpp laa fi daayir bi féete ngooy fi daayir bii féete waa ilaamati fi xam fi mu féete ma fi ñu ko féete bu ñu féete ku leen ana ko fi féete waa kon ndax xëy bari lool waaw te loolu ñi ci dëkk dara ñoo gën a xam rawatina ñi nga ñi leen di romb ñëpp xam nañ xam nañ ne bëgg renforcer daayira bi ak bëgg mu dëgër moo tax sëñ bi dugal leen seen biir ngeen di ci doxee nu ngeen mëne ak nu ngeen mëne nu ngeen mëne nu seen këm ba kattan damay wax ne fi ngeen di xëyee ak fa indi liggéey ji xëy ndakaaru xëy ji xëy ndakaaru ñëw liggéey si Tuubaa seen tool bi seen Tuubaa rek ko jar nag yéen a xool ñi daan jóge Tuubaa di fekk seen Tuubaa gànnaar ñooy ngeen seen bët waaye ngeen xam ne dara rëwiyut nag la seen Tuubaa yoroon ca gànnaar yor ko fu ma nekk ba tey mi ngeen ak moom fii itte ji nga xam ne moom lañ ko daan sàkkoo bare ku ko ittoo rek ku ko am rek jot ci te xam nañ itte jooju mi ngi fi lu jamonoy xat-xat lépp bokk leen sëriñ bi de leen ko yanu ko seen digg bopp te lépp lu leen nar a yàqal sëriñ bi sànni ngeen ko hmm. waaye nag ki nga koy seqal di am na pay moom ñëw ñëwul bor dafa am pay te kum dul liggéeyloo gor soxna kum dul kum leen def liggéeyloo kum ne fay du la liggéeyloo kon alhamdulilah rabbil alamin bu nu boolee ci ñu koy xëy ci tool bi te tool bu gën tool bii kat amut lislaam rek moo di torom te fii mooy waar bi mu dal kon ku fi dal ndoog ku fi dal moom alhamdulilah rek nga war wax kon yàlla bu gi muñ dugg lépp di yàlla suñ bopp bu mukk ndax xam nañu sëñ bi nangu ko moo tax mu ni liggéeyloo waaye ñun nag yàlla buñ def lu ko yàq damay gis ci suñu bopp yàlla nañ gis ne rek waxtu nañ xëy ni rek ndigal lu ñu rek nañ jàpp ne ndigal loola ci la ngërëm sëñ bi ne defoon naa démb defoon naa bëkk démb buñ ci am soxla te te noonu ngeen ji doxee nag daal tafeel ba noonu ngeen di doxee waaw waaye sëñ Tuubaa nag moo mel noonu comme ne dimbali ku nekk da jàppal mooy teetal boppam fa nga teg sa fa nga teg sa tànk tey ju nekk moo gën fa nga tegoon nga tegoon démb waaw ba ba ñuy tàbbi aljana kon alhamdulilah rabbil alamin ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jonte itam ci mbooloo mi nga xam ne def nañ ca kër ak war ko yëpp ak képp koo xam ne jàpp na ci ndax lii ki ku ne xam ne pëstéef la waaye def ko ngir jumaa ji rek lii jumaa ji mën na cee war ay at waxuma ren waaye at mën na ko cee war dañuy jëfee seen itte rek jëfe seen xol jëfe seen pëstéef waaye nag ki nga ko seqal itam pëstéef la jëflante ak dunu sëriñ yàlla na fayee nu kaw nu kawee ni ngeen jëflante ak moom waaw nim nu gënee na fayee noonu mu nu gënee def na def ngeen seen kattan moom yàlla na fayee nim nu gënee yàlla na fay yàlla na fay nan bu ko defee lépp dana baax bu soobee yàlla jërë ngeen jëf di leen sant mbokk mbokk yëpp ak suñu ngërëm ak suñu ñaan yëf yaa ngoog ñu ngi leen bu ëllëg ba ci seen njuwaat liggéey liggéey baa ngoog waaw sakuna xeer wal tudxil fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al-wafi